téléthon bi seen TV bëgg a def nar ci ànd ak ak meeru Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz ñu jàpp ko samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar muy 17 octobre bi ñuy dëgmal waaye ñii di waa CNRA yëngooti nañu dalaat ci kaw waa Sen TV ñoom dañu jàpp ne téléton bi ñu bëgg a def ngir jàppale eh, ñi am coow foofu ca terme sud muy militaire à la yi dañu leen bëgg a génne seen i kër eh, ñoom eh, ñi ànd ak Babacar Diagne di CNRA nee nañ lu ñu mel du dëgg du yoon te ñu ngay dànkaafu waa Sen TV ci boobu le téléthon ñu nas bëgg ko def samedi bi ñuy dëgmal Babacar Diagne lettre bi nga xamante ni yóbbante na ko euh, directeur général bu Sen TV di Bougane Gueye Dany dànkaafu na ko wax ko ne daal téléthon bii ngeen bëgg a def jaarul ci li nga xamante ni moom mooy réglementation ci wàllu audiovisuel ci wàll cahier de charge bi ñoom dañu jàpp ne daal li nga xamante ni moom mooy wàllu information politique ak générale lépp rek dañ ko war a def ci wàllu indépendance de l'information te baba Babacar Diagne ak waa këram di CNRA jàpp nañ ne lii di téléthon boobu ngir jàppale militaire u terme sud yooyu le teguwul ci yoon te dànkaafu nañu bis bu mbir mi amee rek ñii di waa CNRA danañ dalati ci kaw Sen TV kon Bougane Gueye Dany Barthélémy Diaz seen mbébét bii nga xamante ni yéen a ngi ko bëgg a def ah kay këyit dal na ci seen kaw ci ab dànkaafu ci boobule teleton ñu fas yéene amal ñuy laaj rek téléthon ngir mën a dimbali askan bi nga xamante ni dañ jànkonteel ay jafe-jafe est-ce que rek lii di waa CNRA am na ci yoonam déet loolu ab laaj dong la waaye daal lépp rek nañ ko teg ci li nga xamante ni mooy ci wàllu réglementation loolu la waa CNRA wax ka ko jiite di Babacar Diagne.